xam ne ni màggal lu muy am ci loolu ay million million mbooloo la ñoo di teew mhm. ci fan gàtt te ndox mi xëy na am ci jafe-jafe tuuti ñuy jéem président bi jéem leen lépp loo xam ni état war na ko mën a def ci wàllu ndox pour bu màggal jotee problème ba ñu am ngeen def ko ci loolu ci at xam ni màggal deux mille dix bu ñuy dugg président bi defal leen ay forage Touba mu nekk juróomi forage yoo xam ni am na fi ñeenti forage yi muy forage wu Thiamatou di forage wu Thiawéen di forage wu Lansar ak forage hôpital état bi def juróomeelu forage bi Maou Rahmati moo ko def au niveau zone centre di ci profité seen aussi di gërëm taxawaayu Maou Rahmati parce que chaque fois que ñu def ay intervention ñu ngi taxaw suñu yëpp di jàppale état bi te ñoom seen ay koppar lañ ciy jàpp ci ndigalu sëriñ bi donc vraiment Maou Rahmati seen taxawaay rafet na baax a baax lii ñu ci def ren ci forage. nga xam ni état bi moo ko te bu même bu Maaw la wax aussi maanaam équipement yi état bi moo ko fourni moo def foore moo gas waaye équipement bi état bi fourni te loolu yëpp bu ñu xayma xaw naa jege milliard un milliard cent et poussière la état bi def ci wàllu bu ñu maanaam fii ci Touba li ci am ci lox mat na maanaam euh, juróom quatre-vingt-dix mille et ci jour xëy na bu ma traduire ko ci woon dama xaw a ndax moo tudd chiffre waaye yokkaat nañ ci lu xaw tonne vingt mille maanaam boo jëlee téeméer yi fi am yokk nañ ci au moins ñaar fukk yaakaar ni liñ ci bu soobee suñu du ma nag parce que damay loo xam ne du mën a nekk dëkk boo xam ne maanaam population jege na million mu teeru du toll ñetti million ñeenti million ci ay mbooloo kenn mënul assurer que ni dinaa mën am cent pour ci lu ma soxla waaye dañuy fexe wàññi coono yi kay wàññi parce que bu ëllëgee moo tax sëñ bi bëgguma wax jour ba ñëw robinet fii tëj fële ñu ne ah ndox mi ndox mi lii ndox mi ne leen waaye liñ ci def ci investissement yaakaar na ne dana indi amélioration bu am solo ci wàllum forage ci wàllum ndox mu jóge ci forage déjà fi ñu dem quartier yu ñu jot dem gis nañ ndox mi mi ngi jolli fu mosuloon am ndox mi ngi am ndox pression yi yokk nañu ndox mi disponible na te loolu yaakaar naa ni ñi ma àndoon léegi dégg nañu témoignage population yi du ko def waaye bisu màggal nag ni ñi dañuy gën a bëri soxla bi gën a yokk te yaakaar naa ni année bi bu soobee suñu borom dana tax loolu ci doxu forage la waaye au delà des forages am na ay camions citernes yoo xam ne mettre nañ ko aussi la disposition commune bi lu toll na ci plus de cent cent soixante camions. Touba Touba fi may wax am na cent quinze camions yoo xam ne ex ni Touba ñu ngi fi dama mag ci engagement bi nga xam ne jël nañ ko fii ndigal bi am defal ñu def sant la nga def te loolu bu amee lu bëri lépp sax mën naa ko wax yow yaa ko facilité yaa ko yombal donc ci loolu ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax di la sant di gërëm acteurs yi nga xam ni jàpp nañ ci liggéey bi ba i nga xam ne toog nañ ci résultat yi ñu am ñu am ko